waaw loolu moom dañ koy dañ koy regretter di jaale ñi nga xam ne ñi ñoo ñoo ci faatu d'ailleurs wax nañ préfet mu dem côté Pikine ak Guédiawaye si nga xam ne foofu la affaire bi amee jaale famille yi mais tamit ñuy wax xale yi ñuy moytu plage yi surtout bu fekkente ne dañ koo tere surtout bu fekkente ne amul kenn ku leen di assister ci lool parce que loolu dafa am solo c'est vrai que nag dégg naa tey ci suba ci rajo bi ñuy wax ne am na plage yoo xam ne yi daanaka ay privé ñoo fa ne instruire nañ préfet yaakaar naa sax loolu amul mais bon puisque mais instruire le préfet Pikine ak Guédiawaye pour ñu xoolal ñu dans le littoral ndax c'est le cas su fekkee c'est le cas day dañ immédiatement waxuñ ne kenn privé du fa exercer mais public bi nga xam ne bii amuñ accès également ci euh, fay war nañ mën a accéder ci géej gi parce que géej gi ñëpp a ko donc loolu aussi vraiment disposition yi ñu jël la mais ñuy ñaax ndaw ñi surtout parce que ñoom la bu ñuy dem ci géej gi ñu vérifier surtout ndax géej gi protège na ndax bu ko dara amee am na ku leen mën a ku leen mën a mënuñ def mètre carré bu ne policier am loo xam ne yéen wul tey on di dit que plage bi côté Guédiawaye c'est sept kilomètres cinq cent xanaa dañuy jël police bi yóbbu ko foofu mënut ne na nit ñi am discipline fii tere nañ ko bu week dem tout simplement loolu bokk na aussi également ci respecter nit ñi respecter liggéey